maye bii nag bu jógee ko ministre bu ju séntu wàllu tourisme bi jëmle ko ñii di ministre bu séntu wàllu wérgu yaram bi nii lii nii nag di maye bi dañ ko daal di jox a ñii a pour mu dimbale lañ seen xeex a buñ nekk di def si lii di Covid 19 pour bu mu dugga si si biir réew mi fii nii kii di Baboucarr Souaré député chairman bu Gambia Tourism Board moom nag. moom nag wax na ne na nit yi dimbale ñii di ministre bu séntu wàllu wérgu yaram bi ni pour ñu daal di xeex lii nii di jàngoro Covid 19 bii nii ñëpp nag war nañoo daal di jaajëfal te nag dimbale ñii di a bunta bii nii si si xeex buñ nekk di def pour jàngoro bi bu mu dugg si si biir réew mi fii nii. Professor Pierre Gomez board chairman bu Gambia Tourism and Hospitality Institute moom nag wax na ne lii di jàngoro bii nag su fi dugasee dina daal di sonal suñ ab bunta yu bëri si biir réew mi fii nii. lii nag di jàngoro bi su dugasee fii dinañu daal di sonal surtout suñu wàllu tourisme bi te loolu nag dina daal di dem sax bi be sonal suñu wàllu koom-koom bi. Abdoulaye Haydara directeur a Gambia Tourism Board moom nag wax na éene buñ daal di am pour daal di jàngal nit yi jëmee ko jàngoro bii nii. dañ bugg nag pour daal di yokk xam-xam ak mën-mëni nit yi pour daal di xeex lii di jàngoro bii nii te nag nit yi te nag pour nit yi bàyyi di wax ak kàddu yu nga xam ne nag amut wala sax a dégg nekkut sa gannaawam. te tamit nag ñu daal di yokk xam-xami nit yu nekk di liggéey ci wàllu tourisme bi Moustapha Bite di acting director of health and service moom nag wax na ne lii nii di maye bii nii nag dina leen dimbale te ñoom dinañ ko dugal fu mu war a dugal dinañ leen wax ne nag lii nii di bagage yi nii dinañ ko dugal fuñ ko war a dugalee ci bépp béréb fu mu war a dem te nag bagages yi duñ ko daal di joxe noonu dinañ daal di dimb ñu ngi amee yeneen yuñ daal di denc si suñu asto bi dinañ dugal yenn bagages yi tamit foofu di nga gis ne nag béréb bu soxla a bagages yi nag a dinañ ko fa dugal ci num gën a gaawee. tourisme nag la ah, feebar bi di ah, gën a sonal ah, parce que ñu bëri ñu dee ñëw fii ni holidays ñoom nag dañ daal di jàpp seeni tànk lu ko waral moo di ne seen nguur yi ñoo leen wax ne nag buñ daal di génn si biir dëkk bi wala ñoom sax ñoo daal di toog benn place pour ñu bañ a am lii di jàngoro bii nii